salaamaaleykum mbokk patriote yi gaa yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp ah, di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp bon gaa yi vite fait rek bon xam nga daa mel ni tey yenn mbokk patriote yi ñoom suñu suñu leen waxul lu jugee télé rek duñ ko gën gis nga bi ma leen Bougane Gueye Dany laay wax dama leen wax stratégie Bougane Gueye Dany exactement ah, kenn ëmplewul ni waxoon naa leen ne euh, y a une benn large coalition buy am Bougane mi ngi ko doon tiisee Bougane wër na oppos opposant yu bëri ñenn ñi dàqoon na ñoom ñoom je vais je vais revenir ñeneen ñi dàqooruñu bi euh, euh, opposition bi commencé Khalifa Sall ak Sonko di ci dox bi ñu waxee ak Bougane Gueye bon Bougane au début il est réticent il n'est pas réticent mais dafa am benn mission je je vous avais dit tey Bougane Thierno Alassane Sall ah Pape Diop ancien de Dakar ñoom Alioune saw ak le PDS ñi ngi préparé benn coalition léegi dama leen wax benn kii rek gis nga Bougane le fait que démb mu ñëw euh, dugg ba ci yàgg na a génn parce que les couleurs vert vert rouge loolu benn benn stratégie la boo xam ne ëllëg bis muy def conférence de presse da koy relever xam nga lu may wax man premier jour laa bëggoon génn ci affaire parce que gisuma lu ma xam mais jë yàlla ak euh, Khalifa Sall moo tax ma dellusiwaat loolu déjà il laa créé une vis pour mieux solidifier même maanaam euh, euh, mieux solidifier maanaam alibi bi nga xam ne moo tax mu génn ci kii bi Bougane il va sortir de la coalition actuellement Bougane dafa am benn loxo ci biir coalition Yewwi Askan Wi am loxo ak ñaari tànk yu nekk ci beneen coalition bi nga xam ni moom PDS ñoom Alioune Sow Pape Diop Thierno Alassane Sall et cetera ñeneen boo xam ne ñoom taxawal nañ ko pare di xaar léegi Bougane il joue le rôle de trouble-fête maanaam le fait ni mu def nii yëpp signature bi bon réserve la si la la la signé ñëw na gis couleur Pastef mu jaral ko mu ne day génn ba ñu topp ko di ko jëli c'est-à-dire que Bougane Gueye Dany il joue pas franc jeu Bougane Gueye il va sortir de la coalition loolu c'est sûr Bougane Gueye Dany déjà mi ngi beneen coalition boo xam ni c'est fait léegi nag Bougane mi ngi ci biir coalition bi il connaît le faits et gestes et leur stratégie le moment avant les locales dina jóge ci collage coalition bi dem coalition bi nga xam ne moom moo ko formé ak ñeneen ba pare mu ngi en hibernation di xaar y aura une autre coalition mais lenn am ba am amul coalition bu fi am doole sans sans passif tey nga dajale coalition yëpp peut-être élection locale coalition baax na nga dajale coalition yëpp ils font pas le poids de passif léegi nag lenn moo am. coalition bi bàyyi Bougane mu ngi xam seen fee geste di préparer stratégie am fële wala tout bonnement ñu génn ko ci looloo gënoon simple Bougane bi muy dem Khalifa Sall waru koon jàpp mais loolu stratégie la pour mieux jour bi nga xam ne day def point de presse dee leen xool jour bi Bougane di def point de presse il va relever il va faire il va il va ancrer euh, son discours par rapport ak jour bi ab démb bi mu war a bi mu génne ba war a génn parce que dina ni xaw ma lu xam parce que ñii ni ñuy wax du mënul defar dëkk bi yooyu noonu la kon gars yi bugaan bu mu leen nax bugaan ngay dani il joue pas français je dem naa ba nit ñi di ma message naan ma yow da nga acharné wu ci bugaan mais je connais bugaan bugaan bi ma koy xam mi ngi ñëw gravi pub laa wax xam naa buggaan bu baax koo xam ni moom la moom la gënoon jege koo ko doon defal liggéeyam yëpp moom moo ma ni Bougane Gueye Dany lum la wax du dëgg mu ne ma xam naa ko temps mu nekkee da yore kii d'accord am bi xaw ma eh, mooy agence de de pub boobu muy ñëw ci Gravi pub si Mansour Sodida di fa defar ay ay ay ay ay panneau publicitaire di fa defar ay panneau publicitaire man boobu laa xam Bougane kon Bougane man daraam bett ma lii nag loo xam ni la stratégie la Bougane ñaari tànkam ak benn loxo ak bopp bi yëpp mi ngi ci beneen coalition bi nga xam ne ñoom Thierno Alassane Sall ñoom Pape Diop ay yeneen ci PDS yëpp ñu ngi ci parce que en fait Sonko lañ mënul supporter gis nga coalition su Sonko bokk woon Bougane da ciy ñëw da ciy tax rëpp kon gars yi mi ngi noonu loolu laa amoon ci lu may wax ci affaire Bougane bu mu leen bett Bougane il va sortir dina def point de presse pour dénigrer coalition bi dina ci wax loo xam ne amul mais ñii mënuñoo liggéey Sénégal seen vision man doy moo tax si ñëwul il est dafa jaloux ba ça le ronge au cœur te Bougane il n'est pas véridique Bougane il joue faux tout le temps même dans dans son travail loolu ñi nga xam ne employé lam sax dañ leen koy laaj dañ la koy wax kon gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp wasalaam